العدن أكرم بذلك الكتاب في هداه والصواب فيه القطواب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء من كل ومن آمن

الريح والأقوام وهو الذي من أطار أن هو ما تدبر فيه عصى رب الورى أضحكة بأعمال يكن فاته عند الشكر الأقوام الذي على كل كتاب وسيلة كالكعد وبالفم أشكر ربي العظيم على كتاب الحكيم وفث فيه بعلم تفهم ذات صرفه الكتاب ربي الكتاب بنذير دعائك الكتاب به علمت من عتاب وجعل باتي زقامي

بخديد نرقد زمان وقدام أنشر فيه الجنان يا من يصون للمكان ولتطيب الجنان يا خير ذكر محكم يا ساكن لا سقل سوى يا من قيل وليك وحكيم يا غير منزل اليوري ما بدا صبري ربي يوصف في فكري بك بخير بنور قد جاء معها خير العلوم وقامع ليعيد وما نعم مني أزات وهمي أنت سبيلي والأنيس لي قد صفائق الماقيس بقدمات المحرائي مكيس بالملهم أنت سبيلي والأنيس لي قطوفا المقيس بقدمات المحرائس مكيس بالملهم يا غير ذكر قد محا قلبي فما حابريا كوني مفلحا للمنزل المفهم بك سألت مالكي كوني أنا وصالكي ودنجي سابنا سيكي بمن جلال وأياكم للنبي في أبدنا بالحب سلام المقرب بلا انتهان والمختم وهو الذي من يتقي بنا من لقامي وهو كتابه المبين جاء به ندب الأمين بإذن رب العالمين هدى إيحاء الأقوام وهو الذي من أطار أن هو تدبرا فيه عصى رب الورى ضحكة للوام mboolem sëñ Fallou Gueye mu teg ko ci mboolem njaboot gi sëñ bi wax na ay kàddu yoo xam ne yón yónnee na ko ci ci njaboot gi ak ko cant ak ñaan cant gi nag mooy noppal gi ngeen ko noppal waa kër Baay Laaj Mor Gueye sëñ Abo nee na mosut a mosut a dégg lu muy ñëwee di ñaan intervention ci yéen kon noppal ngeen ko noppal sa kilifa nag mooy fexe ba du jóg solo dàllam di la lijjanti si loolu mooy noppal sa kilifa noppal sa kilifa doonu di ko alal ba pare di ko sonal noppal sa kilifa mooy toog fa nga toog fexe ba ja fexe ba doo yëkkati sa sëriñ mukk ngir ngir lu muy lijjanti loolu yàlla dogal na yéen waa kër Baye Laaj Mor gi loolu dal dalu leen seen waajur wa tegoon foofu rek ngeen nekk lu ñuy woote ka sëñ Fallou it kenn du leen ci man waaye nag noonu noonu rek la war a demee ndax doon na jàmbar joo xam ne nii laq na ngërëmal Cheikh Ahmadou Fadal laq na ngërëmal sëñ Moussa Mbacké Fallou laq na ngërëmal Cheikh Ahmadou Lamine Bara laq na ngërëmal sëñ Abou Mbacké sëñ Fallou noonu it la ko ci mboolem njabootu Cheikh Ahmadou Fadal góor gu jigéen ba yoroon doomi Cheikh Ahmadou Fadal baax moom ku ko def ba yor doomi Cheikh Ahmadou Fadal rek kooku gën na gën a baax la ñuy wax gën a baax tey tey yoroon na ci njabootu Cheikh Ahmadou Fadal gi ku ñuy wax soxna mi Cheikh mu nekk fi wax dëgg yàlla mu rafet am fi njaboot gu gu baax goo xam ne wax dëgg yàlla mit kuy xool lu baax ci ñoom lu baax da ngay gis kuy kuy wut lu baax it boo ñëwee ci ñoom fa yam kon loolu dañuy wane ne kon Baye El Hadj Mor Gueye ku liggéeyal Cheikh Ahmadou la ba Cheikh Ahmadou gër gërëm ko ku yor doomi sëñ Fallou rek ngërëm sëñ Fallou tax nga ko ko amul ngërëm sëñ Fallou mën a yor doomi Cheikh Ahmadou Fadal ndax loolu woyefut ñooñu wóoyu fuñ ku ne ku nekk doon yor kon ku leen yor rek kooku kilifa la kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax fa nekk yàlla na ko fa yàlla na yàlla na suñu borom seral fa nekk te yaatal ko te leeral ko te daje dajale fa ngërëm si saxmat fadal noonu lañ koy ñaanale suñ suñu bàjjen ji wax jooju it mi seex euh, nga xam ne wax dëgg yàlla liggéey na fi luñ xam kon it ñu koy ñaanal ak mboolem njaboot gañ ña jiite ñëpp yàlla na suñu borom teral leen te te te yaatal seen i bàmmeel te seral seen bàmmeel te leeral seen bàmmeel yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def li mu fi bàyyi tamit yàlla na ci yàlla teg loxo ba la mu yéene ngeen àggale ko te àggale seen yéene sëñ Fallou mi li ma waxoon ne moom la sëriñ bi wax ëppoon na loolu gënoon naa rafet loolu waaye ñun ñoo xool ni gën a jekkee ak niñ ko ni ko yéegee rek ñu waxe ko noonu waaye sëñ bi daal sant na leen fa sant yam gërëm na lu ñu woote ci kër sëñ Fallou kenn muy lu jëm ci ay màggal mu jëm ci lu jëm ci ay addiya ak ak lu mën doon ak ci liggéeyal tool ya fuñ gëstoo gis leen te loolu leen seen waajur yu ànd woon ak njaboot Cheikhoul Fadal gi ba ngeen da ngeen koo feddali ci njaboot Cheikhoul Fadal gi kon seen waajur fa mu nekk xelam dal na xolam sedd na guyu ndax li gën neex ci àdduna mooy bàyyi njaboot goo xam ne nii euh, euh, ñu ngi ñu ngi siraatal fa nga nekk da nga fay nekk ak ak ak xel mu dal ndax euh, ñi ngi gis njaboot gi ginnaaw ñi ngi gis njaboot gi nag njaboot gi buñ jee dox dox dox nu rafet rek seen seen xel dégg na dal kon loolu ñu ngi leen ci ñaax bu baax baax te leen sant bu baax baax ñoo ngi ñaan it lépp luñ fi ñaan te yool bi lépp yàlla na ko yàlla jotale si bàyyi laaj morgey ñu fi jàng ci alxuraan ñu fi jàng xasaayit lu ñu fi saatu ala nabi lépp yàlla na ko yàlla jotale ci yool ba fam nekk ku laq ngërëm la ku am ngërëm la ku ñëpp xam sëtub sëtub sëñ fallu sëtub sëñ fallu bi nga ndaw xam na ko te lañ ko xam mooy sëñ fal lañ ko lañ xam ci moom bëgg sëñ Fall yi mosu ko yemale ak dara noonu tamit loolu tamit moo nekk ci njabootam gi njabootam gi foo leen gis rek que sëñ Fall la foo leen gis rek que sëñ Fall nga leen gis doo leen gis fayen fu sëñ Fall ak waa këram kon ñoo ngi sant bu baax a baax ñoo ngi jégalu bu baax ñàkk mën a wax moo waral kaddu yi xaw xaw a soogi waaye bëggoon nañ mu gën fekki lool wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbooleem ku fi teew di jiital ci nuyoo bi Serigne Fallou Mbacke mii nga xam ne mooy Serigne Fallou mu suñu boobu ak sëriñ Cheikh mi Serigne Abo ak Serigne Fallou Bousso ñoo xam ne ñëwoon na fi ci suba waaye daa àndaat ci délégation bi ak Serigne Abo Mbeng ak mbooleem bokk yi nga xam ne moom lañ àndal jógee ci suñ kër Serigne muy kër Serigne Abo Mbacke mi Cheikh Abdoul Fadal yëkkati kàddu yu gàtt rek muy kàddu yu sant yu bàyyeekoo ci Serigne Fallou mi nga xam ne moo mag ci kër gi ak Serigne Cheikh ak Serigne Modou Gueye di wax ne kàddu yi moom ni ko ko Serigne Cheikh waxee rek kàddu yi cant la ndax man lam yaskurun naasa laa yaskurullaha ah, ku sant nit doo sant yàlla ndax yàlla du jël dara di ko indi direct il faut ci nit la koy awele mu agsi ci yow sant googa ci wa amaa bi ni'mati rabbika fa hadis la alxuraan wax buñ la defalee yonent bi la ko yàlla waxoon ne ko buñ la defalee te lu baax na nga ko wax kon njaboot gi ñi ngi sant Sëñ Abo bu baax a baax a baax ndax def na lu baax ba tàyyi ci kër gi daana fi ñëw bu yàgg ngan goo xam daana ko defal suñu way jur ca jamono yàgg yàgg yàgg booba xam naa gën nañoo nekk gone xam ne at mu jot daan na ñëw di ko gane ñu jaxasoo woon jaxasoo bu rafet. Euh, la ko jiitu itam ca place ba ma amoon fee ca wetu place baay bàyyi ma Ndumbe Ñang ba su ñëboo daa wut xëy te nekku fa li ñuy nekk gone yëpp yooyu yëpp daan nañ ko gis muy jaxasoo boo xam ne nii ca bu yàgg la woon ci jaxasoo yu bëri su ñëboo itam fàttiwut loola. taxawu na ko taxawaay boo xam ne nii bu fi sëñ lu nekkoon du taxaw taxawaay bu raw ndax bi mu tollee ci wéradi gi biñ ko ko waxee dane nañ ko yóbbu te lépp lu ci war na ngeen ma ko wax ma ma ma def ko. bi bi fi jógee itam lépp luñ luñ luñ def ci bis bi rek suñu ëbboo moo ko def ginnaawam taxaw ko taxaw ginnaawam leeral ko yónnee ndaw looy leeral ginnaawam mu leer naññ. nga xam ne ah, avant muy am ñeen fukki guddi mbiram mépp leer na yoreelut kenn bor te loolu lépp taxawaay yooyu képp la ñuy doon séentu ci moom mu def ko. ba tax na itam comme lañ lañ lañ ko waxoon rek bañ fa ñëwee di ko wax màggal ga daaw ne ko kër njaboot gaa ngi nii say say say matériel lañ. lee leen liggéeyloo bu leen bàyyi noonu lépp ndigal lu ñëwati nañ leen ci bindal seenu sas ñu di ko jëf ndax bu ñu xoolee seen waajur lim yor ci leetar yi yoo xam ne nii sëñ Modou Bousso ña ko bind ak El Hadj Mamadou Lamine benn ndigal loo xam ne nii mosuñu ko cee bind mu jëf ko jëfin yooyu yëpp maa ko denc. tey si ñaboo moom dañoo gis ne da da da da leen a bàyyi noonu rek boo taxoon ñu ko ne nañ leen koy jëf ndax defuñ dara te ñi ngi am uh, xëy xeewal doon di ñoom ñëpp am ñi ngi joxe am na fu mu leen tasaare ci kër Sëñ Fallu yi waaye loo xam ne nii uh, jëfi alaaji Moor la di delluwaat ci Sëñ Abo dañ koo sàkku bu baax lépp ndigal lu ñëwati rek nañ ñu ko teg uh, te bañ ñu cee yërëm tamit ñoo ngi ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te may ko ak wér ak gudd fan ndax kilifa gu gu mat a sagoo la ndax koo xam ne nii bu jëf bu jëf bëree mooma waaye bu wax néewee mooma ñoo ngi ñaan yàlla sàmm ko te may ko wér ba yéen a ji mu liggéey am yéen a ji am ci liggéeyal ko maamam Cheikhul Khadim ak sëñ Fallou mu mottali ko te ñu yàgg ci ginnaawam ci barkeb Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullah